waaw ñu ngi lay fay champion di la ziar waaw tey ñu ngi sant rek. waaw ndeysaan kii bu xewlee ñëpp war a teew ndax rakki Mame Talla rakki Boy Diop la rakki armée la rakki général la mu dee roo suñu keppaar xewle bis war a bëre dimanche mu ne mag damay def open presse woo Mame Talla woo armée woo ñëpp kon bu xewlee gis fi igir waa Géeja waaye waa Papa Kane ñëpp ñëw fi kon dañoo war a génn benn dooleel ko ndax suñu rakk la. moo daan sama rakk di moom la mu deewoon daan fii benn baraak kon tey ji loolu lépp mi ngi ci te Guédiawaye loolu lépp da ko sóoraale muy dem di ji boo jël si lu mi ngi làqatu ruxam di finteel après tabaski di wax te yaakaar naa tabaski ba pare nii fi mu toll maa ngi ñaan yàlla am combat bu tàng te saf gaaw loolu ma lu moon amateur yi bon boy bon boy waaw bëgg naa agogo bëgg naa kii bébé bis mi bëgg naa même ndongoloo mi daan naa daan barki démb sax a génnewaat ndax fi mu toll bi kenn ku nekk yaa ngi war pour noo génne action yi te instant bii sama rakk. duggoon nga yoof ñàkk bu ma ko amee doo bëgg naa ndax instant bii dafa toll foo xamante ne ñun suñu doon suñu mooy daw làmb moo ci daw nii mais aussi tamit di wax ne benn braak autorité fii nekk dañ génn jàppale Gaye 2 suñu rakk la xale la yor na te wax dëgg yàlla xeebul kenn lu mu xew day woowaay magu mbërëm yëpp na jàppale ci kon ñun amuñu lu dul Gaye 2 ñu ngi koy bisam barke yent bi waaw di ko ñaan benn balaa gépp nañ ñëw ñaan ko yàlla yàlla may ko ndam. léegi nag Diop gën a bëgg nag. a bëgg. waaw bu ma amee agogo baax na su ma amee Bébé Bismi tey baax na même ba ci Papa Boy Djiné Papa Boy Djiné mag la mag laa rek daa war faam meilleur faam waaw mag la mag laa waaw lii damaa bëgg ñëpp loolu lu ñu war a lijjanti la laa da ngaa war faam meilleur faam nga rey goos ma rey goos suñu la mag yow dañuy goos dañu koy goos jeex tàkk lii ni ko Papa Boy Djiné gis fu ma ko fekk si sax ba jël avance bi nag waaw. waaw soo waaw. waaye tey yaa ngi ne rek rek dellu. daan fi ndaanaan bu ne jékki-jékki gisee suñu waaw mais gars yi laay xaar rek gars yi laay déglu xaw ma gars yi ragal avance bi xaw ma nu mu waaw. pare su nga jël nga teewal ko ma yeboo ma ne sama seex la kii sama seex la maa moom ñoo defandoo fii lépp ñoo foowandoo ñoo jàngandoo école benn école bi ñu ñoo ko bokkoon kon yaakaar naa ne bu xewloo mel nii damay teew bu soobee yàlla bu ma dara empêché wu damay teew te moom mi. adversaire bi ngeen jël. waaw adversaire moom tiitalu ma ko Guèye tiitalu ma ko Guèye bu ñëw mën na bëreeg moom ndax xam naa qualité yi mu yor xam naa moom mooy kan xam naa capacité bi yor tamit. adversaire boobu isa xam nga ne mos na fee dugg. adversaire ne tey lay tey lay yem. mais tey lay yem. déggoo li yem. ak avec tout Gaye rek tout est possible. waaw maam balaa ci nekk ci ay entraînement di woo am di jàmm yi. di soppe di woo ñi nga xamante ne fii laa dëkk man aw ma lu dul 44 man 44 laa am 44 maa ngi leen di nuyu waa 44 ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu sam papa yi fi nekk di nuyu sam papa di nuy sama yaay ñi nga xamante ne nii ñoo ngi dëkk ba Tewaane Pël maa ngi nuyu waa Tewaane Pël gépp gama soxee koo bawoo fa ànd ak ñoom di nuyu sam booyeeg mafia waaw gerte ñor na wi ak mafia tarkenda waaw mam ma muy toog rek woote di wax waaw waaw dama damaa sama diggante ak Ibou Socé xam nga fi nekk instant bi sama morom instant bi Tapha Mbeur ak kii ku daan nan ma jox Ada ku daan nan ma jox lamb waaw góor gi étudiant maa moom mayu ma ko de gars yi bu bu suba tuuba ma mayaat ko ko te dama koy daanaat waaw. waaw waaw neexee ma ma mayaat ko ko. waaw bu neexee tamit kum neex man fu mu toll ne xaaruma kenn ku ñëw ma bëreeg moom bu soobee yàlla ku ma rek ma bëreeg moom barke alxuraan waaw ñu Idi di la wax na baay namoon naa la yow baay yow baay moo loolu di nuyu waa 44 di nuy grand frère yëpp ku ci mel ne maay waaw maay nga xamante ne sonn na ci ñun ak grand frère yi nga xamante ne man a ñoom dafa yàgg papa yi nii comme noonu dafa yàgg di nuyu wa waaw waa di nuyu Sambour une ba 24 yaa ngi dégg ba 24 di nuyu ñëpp di nuyu Seba Sambouré ak am na Sambouré encadreur yi maa leen di béggewaat bu leen yaatalaat bu baax baax di leen wax ne bàyyi foofu ngeen nekk du seen place yàlla na yàlla teg ci jàmm ba ngeen ñibbisiwaat bu soobee yàlla ok. Mbaye nuyu naa la. waa Idi maa lay fay. naka tey waaw tey mi ngi nii rek. ñu ngi gis tey ñu fekk Mbaye open press. waa gis nga sama rakk mooy xewle quoi ak yooyu yëpp nañu jàpp nañu koy bàyyi teew. parce que ñoom moom fii quoi benn baraak. 44 bu ñuy wax làmb fii moo tax ñun fi lañ soqeekoo fi ñu taxaw nii fi lañ jàngee bëre fi lañ defee lépp ndax suñu rakk bu xewlee dañuy ñëpp luñu jàpp dañu koy bàyyi xam nga yow si voyage la nekkoon tey laa jógee Touba li moo tax ma ñëw nag waaye du ko ñaanal ndam quoi waaw. adversaire bi ngeen di bëre. non làmb moom mooy loolu su doole làmb exemple média yi ñoo tax comme nii mbër ba bëre xam mais ñun. xam ngeen ne adversaire mos na waaye ñun loolu luñ loolu. barki maam Seydou Fall luñ loolu. bu ndam la fi jëlee sax xam ngeen loolu. fi defar la fiy génnee dugg na fi te la fi mujjee dugg lu leer laa la wax. waaw waa ji rek ànd sama mbokk di xaar yoo xam nga xam nga lépp avancé booy ñoo koy daw ko seet na mbaay mu la xaar ma xool ba mu gën a leer. booy yoo xam ne fi ñu a laal ak caaru foraara waroon taxaw dafa daw jëli keneen yaakaar moo gën a yomb ak caaru foraara foo doon leer dafa daw seet lu nooy làmb ji amul lu nooy day baafaal la ni liggéey. mais booy ko ci laaj ñoo koy may bës làmb te du fi ma laaj idi barki sëñ Bamba li may xaar mooy bis bi rek moo def li war a def wax waruma jëf laa war a def dama weer gars yi bor. ba booba incha allah jaajëf ba. Hercule nuyu naa la. maa lay fay Idi. Hercule si ne at fan la ne. waa dañuy sant yàlla rek julli sang-sang yi Seydina Mohamed. gërëm suñuy ñaari waajur. di la sant ci teewaay bi nga fi teew. xëy na nag maa jël rek mais man sax nekkul ma maa la tax a jóg. soxal bu rafet maa ngi ci sant di la gërëm. waaw di sant waa benn baraag gépp rek di sant 44 gi ñu fekk nii nga xam te ne fii mooy suñu feex fii mooy suñu lépp fii lañ jàngee bëree lu ñu am tam fii lañ ko amee waaw di sant yàlla rek Hercule daal ngi nii nekk say entraînement am toog ci ruqam. waaw ñu gis tey sa rak xewle. gis man bi waaw loolu sant la rek moom moo ko liggéey xëy na daa baax di ñu wax rek mais moom li mu liggéey la parce que nit ñi moom yaakaar naa li nga liggéey moom ngay li nga lebal nit ñi moom lañ lay fay war na mu nekk ku baax nekk ku wàccee boppam tamit dégg ndigal loo ko sant da koy def. wax dëgg yàlla man daaxuma ko bëre ëpp ma ko doole mais sax bu amee combat day ñëw ne ma combat bi teg naa ak sa loxo lu ma ko def loolu lay def lu ma ko wax loolu lu ma ko wax loolu loolu lay wax wax dëgg yàlla te daa ëpp ma ko dara ëpp moo ko doole daaxuma ko bëre daaxuma ko dara mais xëy na cër cër bi mu jox nit ñi rek loxo ko gars yi tonawaat fayaat ko tey non man nag taxul ma miin ko dëgg mais seraan naa seraan naa combat mook Abib Laay bi mu koy daan Iba Mar waaw waaw waaw mooy waaw maalaw maanaam Abibulaay bi bi mu koy daan Iba Mar maa ngi fa. dafay duggaat tey. waaw mais dafay duggaat dañuy ñaan yàlla rek yàlla may ñu dam si kawam quoi. waaw Hercule a ngi nii. ka si yàlla Zil boobu. a ngi nii moo fi nekk ba léegi nekk suñu entraînement rek. waaw dañ ñaan yàlla tamit yàlla may ñu combat ñu wane waat suñu bopp parce que tamit toogaay bi yàgg na quoi nekkul luñ gënal nag buñ sañoon sax saison ñu gis ñu mais xëy am na lu ñu doon taaxeelu tuuti yàlla dogal na léegi may nañ ñu ñëwaat leen léegi ñëwaat nañ te incha allah rabi di ngeen gisaat. nga fan nga jëm. waaw gars yi ñu ngi fi. gars yi ñu ngi fi comme ñett. waaw gars <laughs> yi ñu waaw maag Baye Madiaye nee na maag Mbaye Junior combat dàq ko maag euh, maag Brise de Mer 2 Bébé Bismi combat dàq Ada Fass ak kii ku daan bëgg na waaw ñoo ñëpp samay adversaire lañ ñëpp samay adversaire lañ ñu toog waxtaan si waaw incha allah ñu waaw dafa loolu waaw maa gi lay sant yàlla alhamdulilah fekk gis nga dajale xale yi waaw loolu yàgg na avant tout maa nuyu ñëpp di nuyu waa quartier bi di nuyu mbër yëpp yaakaar naa ni xale yëpp sama loxo lañ jaar ñi ci doon fooye bëre yëpp depuis 2004 ba yàlla def fi mu am benn champion boo xam ne Mamar Tall mooy yóbbu ko fu ne yóbbu naa ko fu ne muy bëre mbapat am na champion yu bëri yu mu daan fii xale yi nag topp ci ñoom Guèye ñoom tamit ñu nekk uh, ay rakam ay seeni rakk quoi ay ñoom Mame Balla ñoom uh, booy bëri nañ daal ba ci ñoom armée yëpp yaakaar nañ bëri nañ fii te maa daan tëgg mbapat yi ñoom Bac Seras daan fi ñëw ñoom Tonnerre champion yu bëri jaar nañ fi yaakaar naa ne fii moom suñu réew ba tey ñu ngi koy ñu ngi am yaakaar bëgg fee am benn champion bu taxaw depuis 2004 nag ba léegi yàlla def na sunuy booy yi kenn bëreegul grand combat nag dafa am loo xamante ni moo des dama bëggoon autorité yi nekk fii ci benn baraak yëmbal ñu jàppale booy booy bëre grand combat parce que Gaye 2 mi ngeen di gis nii sax war na mën a bëre grand combat. xam ngeen bi ngeen am. waaw xam naa adversaire parce que am na benn booy boo xamante ni xam naa ko daan ko fi waaw Habib Malaw Habib bëreloo naa ko xam naa ni muy bëree mais yaakaar naa ni am naa ci yaakaar ci combat bi Gaye beneen combat lañ koy wax quoi am naa ci yaakaar trop. adversaire boo xam ne day xeex day bëri. waaw Guèye foofu laa gën a amee yaakaar ci Guèye 2 parce que booy ku nekk xam naa sa qualité jayu moo ko nag mais am na nu muy bëree rek moo man waa ji Guèye nag dama bëggoon gars yi tëggal ko grand combat. non bii da ci génn beneen combat kay laay wax mais bii da ci génn incha allah. marle bi muy bëri. marle maa ko fi tëggal mu jël fii fii la njëkkee waa ñii <laughs> waa ñëpp ñëpp fi lañ jaar. yàgg nañ ci mbapat am na ñoo xam ne dem nañ sax ba ne naa dem uti licence mais nag jot moo ko motewul quoi waaw ànd naag xale yi fu ne ñoom mamar ngeen mën naa ko yóbbu ko fu ne waaw booy nag ñi mi ci àndul moom fii yaakaar naa amul ñëpp la àndal. ay xale est-ce que autorité ñu ngi lay gerte à pour cent non loolu mooy sunu problème autorité mooy sunu problème moo mooy retardu booy am jàppale bi mooy retardu booy booy koo ci gis ah, ndaanaan la ci mbapat. arène nag dafa am lu fa ne mooy jàppale bi foog nga am ko arène national parce que wàllu kaar waru lu bari daal booy dañ ko manqué moo tax seen niveau jógagul waaw ñu ngi entraîné guddeeg bëccëg mais bu ñu demee arène nationale rek dafa am lu ñuy manqué li ñuy manqué mi ngi fii ci dëkk bi maanaam autorités yi ñoo ci jàppul rek. yow nga sol comme yow gi nga dem seeti autorité yi. dugg nañ ci ñëpp am na yoo xamante ni sax ñu ngi ci doon participation mais nag dafa am benn dafa am autorité yoo xamante ni dañuy dund sport yaakaar naa dafa manqué fii benn baraak ñoo xamante ni dañuy dem stade daggal la ticket gérer la sa regroupement gérer la sa añ sa lépp dama koy gis ñu koy def yeneen champion te yaakaar naa ne champion yi fi nekk bu ñu amoon jàppale boobu dañuy booy dégg nañ daal yi waaw maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp xam nga xam ni nañu góorgóorlu rek waaw. waaw ñu ngi lay sant yàlla yow tamit xam nga ñu ngi sant euh, ñu ngi sant ñëpp di la gërëm yow mi déplacé wu xam nga yàgg nga fii xamante nañu bu baax yàlla na yàlla jàppale sa liggéey quoi salaam maaleykum salaamaaleykum mbokk yëmbal mbokk benn baraak ñu rawatina mbokk waa 44 ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax baax di leen ziar di leen joxaat seen wàccuwaay bu wér a wér tey ñu ñëw fii fekk si leen fii kan moo xewle Gueye 2 woote fi open press kon te ji dañ koy bàyyi moom mu nuyoo rek Gueye 2 nuyu naa la waaw salaamaaleykum waaw fay naa la bu wér wér mais avant tout kontaan naa si teewaay bi teewaay bi am na solo trop mais di sant sama waa koñ na waaw aw ma dara lu sama waa waaw Pa Diakhay maire yi waaw sama grand frère ziar naa ñëpp lu ko commencé grand May grand Moussa waaw Ahmed Gueye animateur bi waaw fan yëpp mooy dóor kermesse yi naa si moom trop. waaw mais kontaan nag ñu may ànd entraîné suba ngoon parce que ay ñoon aara ay ñoon pëtta ay ñoon Hercule aw ma seen fay dëgg yàlla wax dëgg yàlla chaque jour ñoo may yeewu dëgg combat bi ku ma xool xam damaa liggéey billaay damaa liggéey ba sonn si combat bi billaay walaay que xam nga adversaire bi nga jël waaw xam naa ko parce que boo xoolee cinq personnes lañ jox sama avance ñu daw. cinq personnes cinq yow yow xam nga si dara daje nañ CNG. Cobra ñu may tànnal ku ñu ma tànnal mu delloo avance. comme boog combat bi maa gën a bëgg fuuf. waaw man maay xale moom mooy mag. te lu ma liggéey billaa walaay xëy si kawam bu arbitre sifflé ñëpp xam ne ka mooy Gueye waaw. kon su ma déggee sa wax da ngaa wax ne moom mag la. waaw wax dëgg yàlla moom moom mag la. waaw ah, mag la dëgg yàlla lu ma def sa laab ñu ma daan ñu ma ñu ma bëri daan yëpp moom moom moo si gën a ndaw billaay walaay. est-ce xam nga ne mosoon xam nga si ne mosoon waaw bu fi waaw bëriwul Guèye 2 muy doog am combat Guèye 2 lay bëre. ndax na fi daan ku ñuy wax Habib Malaw mu duggaat fi tey. waaw dëgg la Habib Malaw la daan kooku sama doom yaay la waaw waaw ba tey na làmb la parce que làmb que la waaw. waaw en tout cas làmb ji lu ko jaral ben jaral na ma ko fukk dëgg yàlla. nee na combat bi lenn nga si am wax ak fecc waaw waaw avant tout maa ngi sant sama dirigeant Boy Thiam parce que daa jóge ba Guédiawaye ñëw fi aw ma fayam parce que ñun tey suñu nekkee école moom moo tax wax dëgg yàlla waaw lu ñu daj yi moom moo tax bu ñu demee école cinq heures la ñuy def lu métti la ñuy daj wax dëgg yàlla ak sama nijaay xaya ma fayam waaw yëpp moom la dëgg yàlla su ma demee bay bëri su ma am licence xaya la waaw waaw maa ngi koy sant di ko gëm di ko di gërëm suñu waa écrit na gars yëpp waaw kullum day juum naa ñëpp. waxal si combat bi dina ñëw sa nee na combat bii nii fecc nga xam Guèye xam ne combat Guèye ñu muy bëral ñoo ëpp safara kii lii du combat bilaa walaay bu arbitre sifflé sama supporter bëgg bilaa walaay bu arbitre sifflé supporter kontaan parce que yàlla du combat la. kon nga wékkee du combat ba tax nga bi combat bi lenn moom a ñor muy su ma daanee grand combat bi laay samb ndënd si ta Papa Sow laa soxla wër na yàlla su ma daane grand combat bi laay samb ndënd dëggal ba loolu du combat su ma ñëwee stade bu adu sifflé di nga xam du combat di nga géy de non neew li nga dégg lii du combat wër na yàlla billaay ñir combat non dëggal ba lu ko raw mooy am na combat bi dama si jàng boxe ba sonn ba ma xool nu ma jeexee dama wàññi poids xool dama dama boxe ba sonn dama diminoo ba tas billaay wallaay combat bi lu ma ko liggéey musuma ko liggéey sama combat billaahi wallaahi taalaay loolu du combat ab man ñett xoolal ñañaa sama morom si ta Papa laa soxla waaw Papa Sow grand combat laay sàmm nan Gueye 2 fi ñu toll nii kuy ma génn si li nga nekk waa léegi su ma yeewoo su ma jàppee waa ji daal di ma jox si ta ah te kon nag ma koy daan su ma ko daanee ba am di nga ah, su fekkee daan naaw dina ma jox Siteu wala Papa Sow ah encore baax en tout cas di sant suñ grand frère Momar Tall ñun tey suñ bëggee làmb Momar moo tax gox bi tey xale bu si bëgg a làmb tey Momar moo tax ñun tey amuñu lul Momar waaw waaw bi na daa diis parce que relève bi man la instant yi yéen bi daa diis waaw di wa waa benn braak nañ jàpp ne xool xool yéen bi nu mu diisee parce que pare naa pour téye ko parce que xale laa bëgg làmb parce que dañoo yàgg topp ay mbapat di dem fu nekk comme boog dafa jot tey pour ñu wane suñu bopp dafa jot waaw combat bi maa ngi wax autorité yëpp waa benn brak waaw ñun ñëpp nañ ñëw jàpp si. ñu gis tey nga xewle ñu gis fii ku si mel ni Pambaay Hercule Gandek Daaru Boy Diop ay armée ñooñu sa digganteeg ñoom lan la. waaw dara diggante moom mafia la mafia suñ biir la parce que ku si nekk tey li nga yéene sa morom. comprendre loolu la la sa morom yéene parce que man Gueye ku xewle damay dem man dama bëgg laamu damaa yor moto boo xam ne pour estade moo tax foo ma seen maay laamu dama bëgg laamu comme boog kaaru li ma leen fay loolu lañ mat. togguma sama bopp naa woote na ñëpp parce que signature bi woote naa bu ñëpp xam ne woote naa waaw waaw laamu ji maa ngi woor ñu ngi woo monsieur le maire Daara Ndiaye combat bi combat am la parce que ñun amuñu dara lu benn bras ñu si ñëw jàpp waaw waaw surtout maa Marsu Sow Marsu Sow nag daa doon sama pap bu baax wax dëgg yàlla aw ma fay gis naa lu muy def nag wax dëgg yàlla kontaan naa si moom nag waaw kontaan naa si moom instant na si gën a jàpp ak ñun ndëri ñun ñëpp xeebuñu kenn yu ma gars yi na na si ñëw ñëpp ñëpp ñëpp jàpp sama maire Edmet gis naa lu muy def si combat maire boobu barke sëy naa doomam laa lu nekk la may defaral wóor na yàlla waaw ay ñoon grand may ak ay ñoon biraan meng ñooñu moom massage social parce que génne bu taxee gàllaaj ñun ñoo tax parce que man xaw ma gàllaaj xaw ma làmm xaw ma dara tey tey su ma nekkee mbër ñoon la dëgg yàlla waa benn bras ñoon alu jee gaa ma seen fay ay ñoon grand laaj ñoon ñoon ñëpp quoi ku lim moom dee jum sama na aw ma fayam massage social parce tey su ma demee bay bëree ba sama papa bàyyi ma non damaa gën a yokk jom yokku ma fit parce que man gaynde laa damaa bëgg làmm sama papa su ma bàyyi làmm xool amul kuy taxaw bu xool ma lay sóoraale billaa walaay mobilisation non wa gën li nga gis moom bu la doyul moom dara dootu la doyat dëggoo lu ma lu mu gàtt gàtt diis yi dina moom parce que géej waaye lu fay jóge bul comprendre waxuma la 44 mafia bi xaa xaa gisoo mafia bi ah xaa gisoo mafia bi ah wala boog danga tapel loolu ñun ah tous tous tous ah wala waaw mais di gërëm na Papa gis naa lu mu si organisation moom ñun opinion ak ñun membre bég naa si gaayam waaw waaw ak ñoon ak ñoon see Diagne ak ñoon Koora waaw ak ñoon Is bëgg naa si booy yëpp ak ñoon Moussa Gaab ak ñoon Jundoo Gaab xam nga mafia bi xool garanka ku xew la ñëpp dañuy jug dañoo bokk ndey bokk baay Hercule moom amoo fayam Hercule sama grand frère sama doom yàlla combat bi billaay wala géej li ñuy kontaan ma doo war a école barka suñu école na aw ma seen fay wax dëgg yàlla aw ma seen fay ñun ñëpp xale ba ndaw ñun bëgg naa si yow waaw yow mafia pa jaaxa yaay nee na mafia pa jaaxa yi bëgg naa si ñoom waaw ñoo ngi ne laa bokk man groupe laa bokk waaw groupe laa bokk est-ce maa ngi si pa jaaxa laa bokk waaw grand maire aw ma fayam waaw grand xaar mooy grand attaquant bi Saray waaw ak ñoom vidéo ak yor mën aw ma fayam mën nu me heure bu ma jógee mu yëg te xaar jooma dëgg aw ma fayam waaw mu numee moo ngi ne aw ma fayam moom mooy sama maal gaaw waaw comprendre ak a amee géej ñoo ak ñun amee seen ñun ñëpp waaw waaw ak ñun amee ja waaw kaddu gu mujj lan waaw di ko waa jouru laam ji waaw di ko jouru laam ji waaw dañuy ñëw si fel pré waaw ak si dal ak si yar comme man dañ maa xamee yar sama supporter ñooy yaru parce que dañuy ñëw kontaan reetaan géej day ñëw jàpp daan ñu ñibbi waaw ma fi maru bi anta nu de mafia mbarul yoon la sama yoon la yoroon dafa diis sama yoon xool antanul sama yoon waaw antanu ko kooku ñemewuma jour signature da ngay xam ñemewuma billaay walaay ah, waaw waaw ata bëgg naa si yow trop bëgg naa